amaat mooy suñu yooneen ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la sayduna muhammad mooy suñu yooneen ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la ku ko bañ koo mën a doon bañ nañu la sayduna muhammad mooy suñu yooneen ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la ku ko bañ koo mën a doon bañ nañu la ñi ko bëgg di ko roy ñun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 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بكجري دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي نعم، سات سونو بروم تبارك وتعالى ديكو بك ديكو كاني ديكو جار سي تورم يو سيلي اك ملوكارم يو كاوي موم سونو بروم ديكو نيان مو نانغول نو انه هو الغفور الرحيم mbokki jullit yi xam ngeen ne sunu xeet wii day di xeetu lislaam comme ni ko sunu borom waxee wa inna hadihi ummatukum ummatun wahida xeet wii de wenn xeet la woo xam ni nag nun ñëpp nañ yëg ni sunu borom defal nañu ci ay jagoo yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu jàng histoire xam xeet ya fi jiitu woon xeeti yontu yàlla nooxin xeeti lóob shuaib saalih ayub suleyman daawud xeet yooyu nga doon dégg Moussa ba ci Isa loo ca dégg ci ay kiimaane ki mbaax baax yu leen suñu borom defal rek lu ko ful ak lu ko fuuf su borom defal na ko xeetu lislaam wi al allaama al imaamu nisaburi rahimahullahu taala te loolu du moom rek moo ko wax yeneen i borom yi xam-xam al imaamu sanaani wax na ko ñeneen wax nañ ko dañuy wax ne xeetu lislaam wi day suñu borom jagleel na ko nangami lim ci ay yëf yoo xam ne xeet wi kese ñoo ko am wenn xeet mosu koo am ñii ni juróom-ñaar fukk ñii ni ñaar téeméer rek nangam ñiy wax sax lu ko bokk na ci jagoo yi nga xam ne sunu borom defal na ko xeetu lislaam wi mooy mawaasimul xayraat muy traite yi nga xam ni bu tee bu teroo nit ki da cay profitoo ngir far ca lam amoon ci ay njaaxum waaye yokk ci lim jot a am ci ay baax baax bokk na ca yooye weeru koor bokk na ca bisub arafa bokk na ci fukki fani tabaski bokk na ci bisub ajjuma bokk na ci bisub ashura ak yi nga xam ne am na ci at mi yëpp tey la ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru lislaam kon ñeenti fan moo dox sunu diggantee fukki fan yu tedd te màgg yoo xam ni yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ci من أيام العمل الصالح أفضل فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر أمل أيبس دقل ينتبع عليه الصلاة والسلام غخمني يوم مونغ جن جن كي سبايك سياي أرما جنكو جوخ أوت كوفتك أي وخم نينكو جمي جمي ووكو وخي كين بوخي سن برام جالي ينتبع عليه الصلاة والسلام نينا لا أمل تبسي أدني ay bis yoo xam ni jëf ca ay jëf yu baax dana toll ni bis yi jëf yu baax yi ngay taamu di ko def ci fukki fan yu njëkk ci fekk fan tabaski loolu wax ju rëy la bokk jullit ñun amuñu problème mu dégg wax ci parce que déggoon nañ ko daaw déggaat ko daaw jéeg ñun problème bi ñu am mooy settantal wax ci ban poids lay peese ngir buñ jugee ñu mën koo jëfee problème boobu lañ amul ay bis yoo xam ni jaamu ca yàlla foor na ba mel ni jaamu yàlla yi ngay tànn di ko def ci fukki fan yooyu saxaaba yi ni ko ah mu ni waawaaw ba ci jihaad mu ni ba ci jihaad fi sabilillah nit ki mën na caa jaamu yàlla sunu borom nangul ko fay ko lu toll ni ku doon jihaad fi sabil lu dul koo xam ba mu génnee di jihaad moom bakkanam dafa des wala alalam dafaa des kooku moom wax dëgg yàlla loo farlu farlu mënoo koo dab waaye bu dee jëmmi jihaad rek dellu si wax dëgg yàlla mbokk jullit yi ku xam jihaad ni mu mel buñ ne la ay jaamu yàlla gi yoo xam ni soo ko defee da mel ni ku jihaadi woon ñëw ah loolu lay dëgg moom la suñu borom di waxal fajiri wala yaalin ashr bunt boobu nag mbokk jullit yi xadis boobu doy na sëkk amuñ jafe-jafe ci dégg wax ju bari ak ju néew jafe-jafe bi ñu am rek nañ xam ne nangam joom yonent moo ko wax mu jeex su boobaa maa ngi soññ sama bopp di soññ mbokk jullit yi weeru koor jàll na fi occasion yu bari romb na fi at maa ngi waaj a jeex de li gën a yéeme nag ci loo xam ne seetluwuñ ko ñun wala boog ñu bari ci ñun seetluwuñ ko mooy occasion yi nga fi amoon ci deux mille dix bi ci mille quatre cent quarante junni atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu wasallam ay occasion yu bari defal nañ la ko ci fukki weer yeeg ñaar ba ci mujj gi nii mooy ñëw nag ba ci mujj mooy ñëw ndax fukki fan yi ci la arafa nek kon moy ba ci mujj rek ndax bo bo ne moy moy muju arafa te moy bu muju kon ñep ñep boyel bo ne manam occasion bi la dese ci at mi mo ngi non di ñew lolu nañ ko wala man ak yow kenn ku nek na yek ni atum ñent junni atum junni ak ñent téeméer ak ñen fuk ci gadda yam salam occasion yi nga fi amone yépp pour defaru jeexna dernière chance mo la dese moy fuk fan yii di ñew japp na ni lu way ñak ñak jang bo xel te deg wax joji setantal ko wa war ngaa xoolaat sa programme bu baakha baax mbokk julli yi xam ngeen kuy dem do ko wacc te dem gi gaaw na lool te ku dem ak sa yëpp fi ni do dong jappal fi nga dekk fi ñiñ fi dekk lool ñepp dañ dem seen affaire seen bop la tal loolu so demee sa bop ngay tal kon mbokk jullit yi loo mas sa xam ci lu baax ak loo xam ne doon nga ko jéem a bëgg a def ci lu baax te ab ba nga ko defoon sori ko anticiper ko xëcc ko mu ñëw ki naan su ma man de bëgg naa sama dund ma def ci nangam te mu nekk lu mën a gaaw def ko baa baadiru bil amal gaawal ci li ngay def bépp jëf ju baax joo naroon a def te amaana ginnaaw fukki fan yi sax nga ko naroon def gaawal anticiper ko xëcc ko ndax na bii mooy dernier sens su at mi xamoo foo nar a mu jëg sa borom lu lépp lu te ibaada jëruñu naan la bii ak bii ndax xam ngeen ne bu ñu nee jàng quran di da ngay sonn waaye loo xam ci ak jaamu yàlla rek ci lu ñuy wax ci lu ñuy jëf ci xittali sa mbokkum julit ci suturaal sa mbokkum julit ci baal sa mbokkum julit sa digganteeg jaam ñi sa digganteeg borom jaam ñi muy sa borom tabaraka wa taala nga doog a ñëw ci julli guddi yi jàng quran nawafili bëccëg yi zikr yi tasbix yi takbir yi xatta nit ki am waxtu woo xamante nii sax da ngay toog concentré wala di xalaat ci say bàkkaar wallahi loolu rek mën na laa jural ak ibada loolu rek kese kese ak ibada la tok rek di concentré di xalat njaaxum yi nga def diko recc diko di di nat sa bop bi hisab lolou ndax moy al muhasaba kon mbok julit yi ñeenti fan mo dox suñu ak bis yoyu kenn ku ci gor lu lo man ci wajal ko ci jëm ci lu sa xel xalat lo japp ni li yurdu rabb subhanahu wa taala lu ci xamoo gan jaamu yalla nak mom la la yalla gërëmee waye xamoo gan nak la lay jéppé akabari jaamu yàlla go xeb fekk gogal ci la suñu borom yëkkatee akabari go daw fekk bobu suñu borom sax gisuko ndax amna lu ci la xass lo xamni xamoko ko noo ñaan suñu borom bi asmail husna wa sifatil ulya xam ngeen ni ay jojju def ma tawfiqi illa billah mi bëgg def def rek lolu nit mënu ko yàlla rek lay mëna dibal dimbali mën nga yene gi mën nga génn fi ak sa jàkka ji ak sa yene bu tol ni angar nga génn fi rek mu père man nga fanaanoo yéene suba sax damay xëy woor wallaay balaa fajar affaire bi peeraat doo xam sax lu ko peeral da nga yéene xaar ma def nangam doo xam sax lu ko fànq wa ma tawfiqi tawfiq ji ma war a mën a am pour def li ma bëgg a def illa billah mënuma ko lu dul dafa bàyyi koo ci yàlla subhanahu wa taala kon ñaanal yàlla mu dëgëral la mu dimbali la ba occasion bii bokk ci occasion yi nga xamante ni doo ko rate dana nekk ak yëkkatiku ci ay daraja waaye dana nekk ak rot ci ay bàkkaar